billaahi wax lu bëri kon prix la yàlla yàlla def jàmm ba juge Tapha est-ce que nga bëre du am lu lay pénalisé ci non man bëriwuma woon aar mais maa ngi doon bëre di ko compétir ci lamb simple bi man compétir baax si bëri simple bi kooku man nelaw maa ngi doon simple bi simple bi di compétir mais nag bëriwuma woon aar mais tamit loolu tamit sama sama sama soobare la ma lan lan moo war nañ di dëgg bëri yi daw wala promoteur yi ma doon woo téléphone souvent parce que man Abdoulaye Diagne ñoo dëkk. man ak moom tout près. kon saa ma bëggee bëri bëri mais maa am ci man ko xam ni maa yooyu fa mu fete boobu ma mën a concentré làmb. yooyu moo boole ci làmb. mais saa yi bu paree rek. maa teel a pare non bu dugg de kaa pare noppal fële. di ñaan suñu nag aduna man ay eh, xaar xaar bi yàgg xaar bu yàgg wax ji bëri na waaw moo tax nag ma ñëw bëgg wax nga ne maa ngi ci nam te ñëwaat naa à cent pour da ngay xeex si wala ngay bëri non lépp laaj lu mu laaj lu mu laaj dinaa ko def xam nga bis bi lay bëri fi ma toll ci mooy kaay moom moo am problème parce que xamul ku ñu xamul tafaare bu ma xamoon ak ay mbokkam dina ci ma xam nga nag fay saalu quoi yàlla na def jàmm dafa ñu jàmm ñun ñëpp wala vingt cinq décembre incha allah rabi jërëjëf <laughs> jaajëf wala la gaan sàcce sa wax rek ah waaw waaw wax ko woon nga wax rek yàlla la may dara waaw ñaanu moo sax parce que loolu wax dëgg yàlla moom aw ma lu may ñaan sama morom rek ñaan yàlla yàlla may ñu bu gaaw nee na bii dugub bi yow teg ko tegu ko dem ci yow ci Ama Baldé waaw bu dee baa yow. bu tegoon keneen keneen ci bërëm la jël da daa war a dem jëlee Ama Baldé. teg ko bërëm moo tax mu jël. dinaa xam ne yoonu làmb moom. waaw yàlla bari na sutura. toujours waaw dañuy xam lan lañ lan la ci yoonu làmb. pour yéen ñu ne leen di bojj. waaw yàlla noonu la affaire bi bu ma régalee loolu bu ma régalee sax moom affaire bi naan. waaw jar ndem la. lan ngay da ngay xeex wala am na da ngaa xeex. waaw lu mu laaj rek. waaw lu mu laaj incha allah ci kàttan yàlla. ne da ngaa bëgg a poésie bi tey c'est bien fait yow moom pour da ngay bëri. waaw mais man mbër laa mbër moom bëree ko woon bëri moo ñu wax incha allah dinañ bëri. daa xam daa xam ne nag daan pour yéen moom. waaw na sutura ñu ngi koy liggéey de. ndax xam naa du lu ñuy jaay lu ma jàmm may ko boolu ñu daan ko ci kàttan yàlla incha allah day def lu mu def day daan ci kàttan yàlla xam na bis bi lu mu def nga xaw ma bis bi mais sama bopp lu mu def day ci kàttan yàlla léegi léegi waaye du ngeen di ci loo baam nga jàmm ana waa jàmm gën ñëpp a ñu gis mu ànd ak yow ak Abdou bu fi newoon sax moo may bu fi newoon. moo a indi. ah daa bougé waaw. daa bougé. waaw mais moom. Ah. waaw séeraas ndam li. moom nga tuddee ndam li lambam la mais ndam li jotagoo ci. parce que allah gi fàllu cin tàkk. cin parce cin bu tàkkee mbaa dina def dara. yàlla noppi na. cin li ndax bu tàkkee day def dara. lees waxul daa muuma. lees waxul moom daa muuma. daa muuma ngay bëreel de ku a xeex. ah wax ji du fii dawul sama yaram ah. mais tey ni la waa jàmm gën toppee nii yi topp la nii. wax ji du fii lii du tey lii na tey nga ko gis yow. wax ji du fii. ah. day xaar lu bëri doole. lu bëri bëri baag bëri baag xeex ba tiitoo ci dara. waaye fa Allah kenn du ma duma. kenn du la duma waaye sëñ Fallou kenn du ko duma. barki a ji Fallou. ah man lay neex ku dal ma. waaw damay xeex ak moom ba fajar. yéen ñaar. waaye jërëjëf sëñ Fallou. wax ji du yaa amul sol amul leneen. may yoon mu jàll. gaañ jàpp leen suma xol. amul leneen. Laurent. Laurent bis benn tool walla allora bis benn toll wala. sëñ Fallou rek. ay des seet. waaw ñu war a dem da ngay dem loolu problème. déggoo ñu rek. waaw. fii lay jaar. non non non fii lay jaar. waaw dugal ko si sànni. am na. kala ki ma àndal joxal ma ko. suñu gars jël ana ana ñu. ma leen tuuti rek mu xaay. moo la kan lay àndal kenn. yow lay àndal ci biir. kii laa àndal. kan. am na kóol bi. am sa brasse. génnee ko yow. loolu yow la ah. daa mel ni daa yenu bis bi tey. kaala gu weex la maye de. dee. dee lamb culture la def de. cumi kaay li kaan. Nora bu ñu xaatim. wala dañ ko ëw. Lora. moo naa ay jë. Lora daa gëj a sax Lora nii la jaago voilà Laurent Ndiago sëñ Fall. da ngay dugg bu gisee nii noonu. c'est bon day génn kii rek ay dem. ah day wis rek day dellu si waat da ngay wis rek jàmbaar. Laurent Laurent bis bee ne toll wala. waaw waaw waaw. sëñ Fall non moom laa kii. dégg nga. su baaxee rek. Laurent.